wasallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala am na sax article bu ma bindoon ci gàmmo gi ak gàmmuwaat gi mu ngi ci internet doon naa ko jox léegi suñ turandoo sëriñ sëriñ Aliou li am solo nag mooy rekk la Baay waxoon la Baay waxoon nag ñaari bayit buñ ko ci génnee dana tënk lépp benn bi mooy ba waxee ne wa maa qataau fi charqi wal garbi fatfadan ila makkatin illa li chammi chedaay ku dem màkka ku dem Makka demula Makka bàyyi ngay seet gis nga ko walla gisoo ko nag foofu la affaire bi nekk mu dellu waxaat ne pour ñi yéemu ci wax ji mu ne wa kay fela wa ayni l yowma aynu muhammadin qad sara sirruhu fi heykali wa mu ne muhammad mi ñuy hut mi ngi nii taxaw mooy Baye ñas Baye Niass ko bind te ku ko weddi kàcc nga mu ne ndax lii daw ci yonent bi mooy daw ci man sama yax yaxam la sama jëmm jëmmam la sama doom doomam la sama taalibe taalibeem la sama soppe soppeem la kon ku dem màkka koo fay fekk bàyyi nga fay fekk waaye ku ñëw Medina koo fii fekk yonent bi nga fii fekk xabru bii ku fi wut yonent bi fekkuloo ko fi boo demee feneen doo ko fa fekk nekkuñ fi nag pour wax ju gudd ay nit ña ngi jógee ba Nigéria ba Cameroun ba Tchad ba Haute-Volta xamul benn ci réew yi àddina euh, euh, euh, yi lu muy ngelawal bàyyi xupp na fa kon nag li am solo mooy ñu sant yàlla bi ñu mayee ñu toog fii te wàllu gu ñu jublu rekk gis fa bàyyi ci doomam yu baax yu jekk yu rafet yu yiw yii toog ak colaay gi macha allah ndax bàyyi itam colaayam benn colaay rek la woon yéen ñi ko xamul hani an lakum hani هنيئا للخليفة شيخنا أحمد التجاني وهنيئا لأخنا ماحي الضلال وهنيئا لأميننا وأميم وأمين سر السر المحمدي التيجاني الإبراهيمي أطال الله عمره وخذل من خذله ونصر من نصره wa shafaa siqaamahu li annahu huwa zuxrun li haada almakaani wa haada albalad cishta yabna ibrahima saacidan yaqdi llahu jamica xawaa'ijika alzaahirati walbaatinati wa yudhiba canka rijsa fa anta min ahli albeyti yudhibu allahu cankum rijsa ahli albeyti wa yutahirakum tathiira Idem, même si j'avais dit que le, le double de Baïnias est un gamou mondial, c'est le seul gamou mondial. Il y a toutes les nations, toutes les langues, on y parle l'anglais, le Hausa, le Yoruba, le Urdu, le Naruganar. Toutes les langues sont parlées ici. Toute l'humanité est présente ici parce que Baye Niass est une lumière qui ne s'éteint jamais. Cette lumière, elle vit en nous. Chacun de nous ici est un Baye Niass qui s'ignore ou même qui se ku ci nekk Baye Niass wonkal ba ma xam ne Baye Niass a ngi ci yow. huu kon nag li am importance mooy li xew ci dëkk bii ca ba mu xewee ba tey mosta xew lu may ca booba. ca Màkka ca Medina Medina gi mooy Medina gee Medina gee mooy Medina gi jazaakumullaahu xayran may gërëm suñu doom yi rawatina Taaha ak Sëriñ Aliyu nga xam ne macha allah ku doom deewoo te ñu am seen xam-xam bu rafet bi ak seen yar ak seen teggiin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bi muy wax ne. nuuruhu awalul wujudi wujudan mu ne leer ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy leer gi nga xam ne moom la yàlla njëkk a bind foofa moom leer googu aslul usuli mooy cosaani cosaani wal anjaali ak doomi bàyyi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa mooy bàyyi bàyyi mooy bàyyi doom yi lam yësal mësta nuruhu leeram bi ayni ilaahi ci kàttana boromam fi intiqaalin di aji toxu fil kawni ci mbindaafoo ni baada ci gannaaw toxu yonent bi wax na ne yàlla du dañul di ma bind di ma toxal toxalee ci góor yi di ma yóbbu ci roxum yi ba ma ñëw diggante Aminatu ak Abdoulaye ñaari effar mu suñoo dajee ci ñaa xam ne ñoo ñoo jur ba ni mu wàccee Màkka nekk yonent boo xam ne mooy gën ji yonent nekk yonent boo xam ne lépp loo xam ne nit kii dana ko daj ci lislaam moo ko njëkk a daj dóor nañ ko xeexal nañ ko xot nañ ay yërëm embargo nañ ko aye ko añ ak reer waaye loolu yëpp taxul mu bàyyi ndax xam na ne yonent bi sallallahu xam na ne borom bi namm na ko te borom bi namm rek mooy li am mu ne nag yonent bi sallallahu yi di doxaw ci diggante bàyyi ak yaay yi ba mu agsi ci aminatu ba nga xam ne moom wax na ne ñaari yéefar mu suñoo dajee samay maam képp koo xam ne maamam la woon yàlla def na muy ku gëm yàlla mu ne nag lam yesel dañut nuruhu leeram googu nga xam ne mooy xaqiqatul muhammadiya bi ay ilaahi ci sàmm ak sama borom fintiqaalin di aji toxu fil kaw ni mindaafoo nii baadantiqaalin ci gannaaw toxu tey mu ne fii ëllëg mu nekk fee ثم حتى حل با واتش الضياء ليرغا وتجلى تمو فين نوره أقلرم في عبد الإلهي جي عبد الله بايم العالي كي أجي كوي أشقرنك من صبنن كو النساء وجيغن يبذلن نجوي جوخي أموالا أي ألل له نيال كو كي كي بايم من أجل الباها نختار بنك تموم والجمالي ak taar ba am na jigéen ju ñëw ci moom ne ko dama bëgg rek nga tëdd man benn yoon ma jox la lañ la jotee woon ci ay gëléem ci keroog bañ la jot lay jotee gëléem téeméeri gëléem naa la ko jox yonent bi Abdoulaye lu mu daf na ko amal xaraamu fal mamaatu duunahu wal xillu laa xilla lahu laa xilla fa astabinahu fa kayfa bii amra alladi tubdiinahu li aram moom aram na li dagan dagan na waaye naka xam xammee ñaar ñi tey moo tax daal li nga bëgg man du la ko du ma la ci fekk yàlla daal koy dénk nag aminatu bintu wahabin te itam bàyyi na ne mu ngi koy ndokkeel ci jokk googu nga xam ne ci la aminatu jokkoo ak abdullahi mooy baayam baay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jokkoog euh, euh, euh, aminatu mu ne nag bi nga xamee ne yàlla commencé na di ko préparer pour pour muy wàcc ci ko suuf si ca azal da bàyyi doon toxal leeram ga muy jógee ci roxom yi sell yi di dem ci ci ndigg yi di dem ci roxom yi roxom yi yu sell yi ba nga xam ne ñëw na ba agsi ci Aminatu ak Abdoulaye Aminatu nag moom nee na bi mu bi saxee ci biiram benn weer wala ñaari weer te waa de asluhu baayam ba almufadda kañ kadi kuñ jot alxaali kay aji kowe ba badaa te mu feeñ adduratul tëmb urus ba alyatimatu bay aji tumuranke xusnan ci taar mu boobu mooy gan mooy yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma al yutmi ànd ak ak fii raxaa il baali mu ngi nekk ci xol bu xol bu dal daama nekk na am na xamlul haadi biir ak yonent bi shuhuran ay weer yoo xam ne xakaw haa nett nañ ko tisaatan muy juróom-ñeenti weer yoo xam ne lam tuxsis moom yëgul dara lahu ci ci ci biir boobu bi thiqaali ci li jigéen ñi mu ne nday aïchatu ne nday aminatu nee na yonent bi daal moom li ma xamal ne maa ngi ko ëmb mooy xanaa ma gis rek suma biir bi di jóg waaye mosuma yëg benn coono ci biir bi ko biir ba ni ma ko mu ne yonent bi nag mu toog ci biiram la juróom-ñeenti weer mat sëkk ba nga xam ne yàlla musta yëgal yaayam benn coono boo xam ne ab jigéenu biir dana ko dana ko daj ba yontu bi sallallahu alayhi juddu yontu bi nag sallallahu alayhi mu ngi juddu fan mu ne jaa ñëwal la ko a talqu mat ga wax moom fi daari mu ngi nekk ca kër ga fardan di di di aji fa ataata ñëw alxuuru uru ayniya batatan ci toftaloo bi bi tawaali ci toftaloo bataata ci betteel bi tawaali ci toftaloo wa atataat ñëwal ko nag xawaabilun way for niiw way fori liir kan ummu isa yaayu isa muy mariam bintu mutaaxim duma asiyatu ak asiya bi nga xam ne moo doon jabari firawna atat ñëw na li naa li ngir may gi yàlla may doomu aadama yi ci bes boobu wa atata te dikkal ko al amlaaku ay malaaka summa tëdd mu mu daal li wàcc nag nuuru kulli nujuumi leeri képp koo xam ne lépp lu luy leer rek lépp jattu na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wadaat ah, ah, jur na ko fi daar ibni yusufa ci kër ibni yusufa loolu mooy li nga xam ne benn ci riwaayaat la aw bi radmi ci radmu ba sëkk ma wa cheeb ak wala cheebi moom itam xawlu julli rijaali mooy waxi góor ñu bëree bari nuuru shamsin leer ak weer la jant la boo xam ne tabazzaxat feeñ na inna shams al mustapha naka weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam caacaat leeral na zalaama dalaali réer ak réer ga mu ne marhaban maa ngi tatagal bi rabii ci weeru rabia fiihi la dikkee fiihi ci rabiyew ataana la ñu ñëwal mustapha alxalqi kuñ tànnee fi mbindeef yëpp waxoo moom xatmu risaali mooy kasteg yonent yëpp jaa ñëw na moom yonent bi sallallahu alayhi dal murtada kuñ tànn kii kuñ ngërëm kii bi tarfin ci eh, eh, ay bët ka xiilin yu way tusgal bi inaayaati rabbina ci eh, kàttani borom sunu al mutaali kay aji kowe wa huwa moom maqtuu kuñ dag la wa la ደህይኑን ኩኝ peñela akrim xéemal biseyni rijaal yi ci nga xam ne mooy gën a rafet ci góor yi xamalatu mu enu ko al amlaaku malaaka yi naxwa jinaanin yóbbu ko ci aljana yi malaaka yi dañ koo jël yóbbu ko ci aljana yi moo tax ndey xat aminatu bi mu geestoo rek gisul doomam mu ne cey waa Makka ñoo sàggan wallahi julal naa leen doom joo xam ne wallahi buñ ko xamoon nañ ko bàyyi kenn du ko yóbbu waaye gis na ni ñoom sàgg nañ ba am yóbbu nañ ko mu ne yoon ñu waral ko nag fépp foo xam ne war na faa jaar rek ñu waral ko fa ci ay géej ki ci ay lépp loo xam ne yàlla bind na ko te bëdd te fata bëdd te mu le feeñ anwaaruhu ay leeram wa anaarat te mu leeral uf ufku bisra busra dëkki busra lahum ci ñaal waa makka yi keroog bi nga xam ne yonent bi judd na leer génn na koo xam ne medina makka lañ ko génn la génnee waaye àgg na ba busra lu tax nag mu ne ool ki nga xam ne mooy taar muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama ba mu juddoo la lan la mu ne wata daa te daanu al imaanu imaanu kisra mi nga xam ne am na junni at comme benn rawayaat yi summa tawaalat te topp nag fii ci moom bushra ay bégale fal fal kufru ak kéeféer baadin sifaali aji feeñ ak ak uh, gotteeku la rajama uh, jam na rajmu biddiw biddiw ya samma foofa kulla rajimin arab yi ñi nga xam ne ñoo doon ñu leen daan seetal dañ daan nekk di euh, di di di toftalante ba kenn àgg ci kaw su ko defee nag ñuy déglu nag lii xew buñ déggee benn dëgg teg ci téeméeri fen keroog bi nga xamee ne yonent bi la génn da yàlla xaaye leen loolu ndax lu tax mooy yonent bi sallallahu alayhi yàlla bëggul kenn eh, eh, eh, solo ko ci dara moo tax mu mu daal leen aaye ñuy eeg ba yonent bi juddoo rek la la la loolu dëkk mu ne naaru fursin géej ak faris nga xam ne am na junne at anhaaruhum seeni yew sewnde fi xumuudin ñu ci ak fay wanqitaail uyuni ak ci dagg ak euh, euh, sewnde ya an tahmalin ci dotti mu ne fursu fursin mu ne lali fursu guddi keroog bi yonent bi juddoo asnaamuhum ay xërëm seen fi jufulin ci way gotteeku lañ bon ji ak ci way mabb yaaru dana topp bu ay dañ jidaali gannaaw geneen mabb mu ne lu ci am daal mooy mawlidun ab judd la boo xam ne xayaral xayaral uquula gëliman gëliman na mboolem gox euh, xel yi bihi al irhaasu loolu mooy wane ne mu ngi ñu ngi préparé kuy dara kuy dara ñëw muy kan muy lil Mustafa mooy yonentu bi sallallahu alayhi wa mu ne li xew keroog ci ci gudd googu ak xew xew yooyu yëpp day wane ne am na kuy ñëw koo xam ne mooy yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne mooy am may yub doy ya marhaban dana ma tatagal kulla marhabin bépp tatagal bil muqaffa ci muqaffa tur la ci turi yonent bi marhaban dana ma tatagal bil juudi ci aji tabe ja asaxiyi kay aji eh, tabe wa tay almihtaali kay aji dotti yonent bi sallallahu alayhi boo koy melal danga koy melale ne mel asamaan soo xam day taw waxtu wu ne muy dooti yonent bi itam ay mayam noonu lañ mel mu ne marhaban maa ngi tatagal waxanii an dinaa ndokkel aydan ba tey li bintin li binti wa maa ngi ndokkel aminatu bintu wahbin an jabat jurna fil xataami ca mujj ga saafi zulaali kay aji neex ndox sabaqat jiitu na fil faxaari ci puukarewu kulla fatatin bépp bépp bépp cam mu ne aminatu mi nga xam ne moo jur yonent bi jiitu na képp koo xam ne jigéen nga ndax lu tax mu ne anjabat jur na mu bi durri ci tëmbab urus ba aliya yaat bay aji wéet alxaali bay aji kawe yonent bi sallallahu alayhi mooy ki nga xam ne moom la yàlla préparé pour mu ñëw indil ko mission bi nga xam ne moo moom rek moo ko mën a mën a mën a taxawoo moo tax yàlla daf ko préparé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamee ne mboolem doomu aadama yu way njëkk ak way mujj daje nañ ci benn place sa siraatu sa sa sa ma commencé di leen lakk di di bëgg leen lakk ñu ne nañ dem ci suñ maam aadama eh, eh, eh, mooy suñ maam mu mu leentalu ñu ci boromam ndax làkk gi mu ñu mucc ci ñu dem ci aadama aadama ni leen taluma leen tey man dama lekkoon garab ga ma yàlla ayoon ma lekk ko moo tax man taluma leen tey sama bopp laa tal ñu ñëw ci nooxun mu ne taluma leen tey ndax fenoon naa aw fen te xamoon lu ma ci yàlla def tey ñu ñëw ci ibrahima mu ne man ma itam fenoon naa bi awfan moo mooy ba mu waxee ne ba mu ba mu goree yàlla éefar yi ba ba mu des benn mu jël jaasi ja daal di koy làngal bi nga xamee ne ñëw nañ di di ko xam ne yow yaa gor suñu yàlla yi mu ne seen yàlla yu ma ji moo ko gor te loolu mu ne loolu jàppee na ko fen moom itam xamu ji laal ko yàlla àttee tey ñu ñëw ci yonent yàlla yusuf moom itam mu lay ñu ñëw ci yonent yàlla ibrahim mu lay képp ko xam ne ñëw nañ ci moom rek ne mu mu mu mu musal leen ci bés bu tàng boobu day day day daw day day daw res comme ni ko xale yi waxee bañ ñëw nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa bi biñ ñëwee rek fekk ko mu ngi toog ñu ne ko yow rek lañ yaakaar tey ndax lii jahannama mu ngi lakk nit ñi te xamee wut ñi gëm yàlla ak ñi gëmut yàlla ñëpp lay lakkandoo mu ne ana laha man lii di ut man rek maa ko moom waroo na waroo leen jaar ci kenn dem ci moom di wax ne mu leen da yàlla man maa ko moom mu daal di jóg rek daal ñëw fëgg bi mu fëggee xarasu yàlla gi malaaka bi ko kan mu ne Muhammad mu ne yow lañ wax ne bu ma ubbil kenn ku dul yow boo boo ñëwee fëgg rek mu ubbil la yonent bi daal di ñëw dugg bi mu duggee rek ci kanam boromam mu sujjoot mu ne ko Muhammad jógal tey du bésab sujjoot tey bésab teraanga la tey bésab pay la lépp loo xam ne soxla nga ko tey dañ la ko jox mu ne man sama xeet waa ngi nii jahannama ngi leen bugg a lakk te atteeguñ leen yàlla na ko demal ci jahannama na ko mu képp ko bëgg mu bàyyi ko jahannama dana ko bàyyi safara sax ña fa boo demee ñoo ci bëgg a génne ñoo génne leen di ko def ba nga xam ne am na benn bés mu toog ak Seydina Omar ibn Khattab muy nettali affaire bi ba ba mu ne yonent bi yokk nañu yàlla yokkal yonent bi ne ko yàlla may na ma ne dana tibb ñetti tëbbin ci safara yoo xam ne ña fa nekk dañoo elloo safara mu tibb ñetti guufin sàll leen aljana mooy ñi nga xam ne yàlla def leen di yóbbu aljana gannaaw boo xamee ne mos nañ safara ndax seen jëf yu bon yontu yàlla naa Omar ibnu Xataab ne ko neel sa borom mu yokk mu ne ko Omar gëj naa ci sama borom ne benn guufinu yàlla mën na génne mboolem nit yi safara yëpp kon ñetti guuf yi doy na bi mu ko defee nag yonent bi nekk ci loolu ba benn bés muy nettali di wax ne kii mujje kii mujje génn safara benn yaaram la boo xam ne dañ koo tëjoon safara bi mu ko defee muy ñaan yàlla yàlla ne ko maa ngi lay lentalu ci barke yonent yàlla Muhammad pour nga génn ma safara si ñu daal di koy génne mu ñëw ba jëpp jublu bunt bi mu ne ko yàlla dolli ma ci barke yonent yàlla Muhammad xam naa ne am na point boo xam ne ci lay jaar mu mu lentalu yàlla di ko leentalu mu koy génne bar benn ba nga xam ne agsi na ba ci bunt bi nag mu daal di ne sama borom booye boo ubbil ma bunt bi rek gannaaw agsi naa ba ci bunt bi yàlla daal koy ubbil keroog bi ko yonent bi nettalee dafa ree ndeysaan ba déggee ji feeñ ndax eh, mbaax ak yàlla googu yàlla de kooku la mujj a sawe safara yonent bi sallallahu alayhi wa mooy muhammad doomi abdullahi doomi abdul muttalib doomi abdu doomi qusay doomi kilaab doomi murrata doomi kaab doomi luway doom doomi xaalib mooy ki nga xam ne moom la àll eh, àddina bi yépp doon xaar pour mu ñëw sowee mindaafoon yi benn bindkat mës naa bind di wax ne mboo tegtali jamono wane woon na ne suñ jamono jii tey suñ àddina bii tey soxla na ab yonent mu ne nag waaye buñ gëstoo ci taarix ñu gis ne kooku ñu yaakaaroon ne mooy sowe doomu aadama yi mooy Muhammad te te ñaari yo diggante yox yooyu kenn mënta wax beneen day sallallahu alayhi wa sallam noonu yonent bi sallallahu alayhi moo juddoo Makka yaroo Makka mosta génn Makka ba nga xam ne waa Makka ci seen bopp sax al amin lañ ko tuddee woon ku ñu wóolu kii ba nga xam ne képp koy tukku tukki te bëgg sa alal mucc moom la koy dénk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dencal ko ko ba mu ñëw mu jox ko ko ba Makka yépp tuddee ko al amin keroog bi nga xamee ne kaaba gi ndox dafa ñëw jël ko ba daanil ko waa Makka di ko tabaxaat biñ tabaxee ba nga xam ne agsi nañ fi ñu war a tegee sa xajarul aswad xeet gu ne gi gu nekk ci Makka rek ne nii ñoo ñoo ko war a moom kenn du dem bàyyee ñu ko ñuy nekk noonu di werante di werante bañ ne nañ seet bunt bii ki ki fi ki njëkk a jaar rek nañ nangu ne moom moo ñuy atte mooy mooy teg xeer wi bi daal di uh, ne tël ñu ne al amin al amin al amin xanaa kay bi mu gannaaw gum nekkee yonentu yàlla oote ci lislaam lañ ko weddi waaye bi nga xamee ne mu ngi fi nekk te dara xewagut moom lañ gën a loolu ci képp koo xam ne mu ngi nekkoon ci ñoom ndax ak njubam lépp loo ko dénk du sànku lépp loo xam ne am nga ko mu mu dencal la ko képp koo xam ne am nga soxla mu daal di faj sa soxla sayda Xadija ne na ko yonent bi ne ko man de dama ragal ne lii may topp nii di ma tiital dama ragal ne eh, eh, eh, dafa may waaja alag mu ne ko wallahi yow yàlla du la alag mu ko ci àddina lu tax parce yow da dimbale nit yow dangay ngay sàmm ak mbokk yow dangay dox ci soxlaay nit ñi képp ku am soxla bu ñëwee ci wow nga dox ci soxlaam kon yow di yow yàlla du la sàkk mukk ci àddina na nga bég waaye nag nañ dem ci waraqatu ibnu nawfal ñu nettali ko sa gént yi ndax mu mu jox ñu tranquillisation ñu daal di ñëw ci waraqatu ibnu nawfal ndey xadija doomi mbokkam la woon mu ñëw ñu ko yow waraqa dama laa indil sa Muhammad booba de kagut yonant ndax daal li muy gént ak li muy gis daf koo jaaxal mu daal li koy ne ne Xadijatu ne ko nettali li ngay gis mu nettali ko yëpp ba mu pare mu ne ko su fekkee ne li nga wax dëgg dëgg la yonant bi nga xam ne moo desoon pour yàlla yónni ko yow mi moom moom lay doon sallallahu alayhi wa sallam te loolu na ko yàlla defee moom la yàlla yónni muy xaatimul ambiyaai wa amma imaamul mursalina sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi lima xaatimi lima ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وآلي حق قدري الدار العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم يا ألف صل وسلم على الباء ونقطته وشكلته صلاة تؤلف لنا بها يا واحد يا أحد القلوب وتفتح لنا الأبواب المغلقة بسر الألف والباء والنقطة والشكلة يا ذا الجلال والإكرام المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا رسول الله العناية العناية يا رسول الله الكفاية الكفاية يا رسول الله الولاية الولاية يا رسول الله الله الله الله الله يا الله الله إبراهيم عبد الله يقول رضي الله عنه في حق حبيبه أهيم بدعد ما حييت وإن أمت أوكل بدعد من يهيم بها بعدي أهيم بداد ما حييت وإن أمت أوكل بدعد من يهيم بها بعدي الله الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله ويقول وكيل محبة سيدي محمدا الأمين في مدح رسول الله هل الهلال هلاله الوضاء جاء الربيع فنارت الأرجاء جاء الربيع ربيع طه المنتقى فاهتزت الأرواح والأعضاء بشرا به وتيمنا بقدومه فهو الذي زالت به الأسواء يا مرحبا يا مرحبا بالمصطفى والمرتضى بدر الدجى من نوره الإنشاء يا مرحبا بالمصطفى والمرتضى بدر الدجى من نوره الإنشاء في ليلة الاثنين بين قد أتى خير الورى فاخضرت الغبراء حل الحبيب بمكة أم الله العراء فتضوعت مسكا به الأنحاء الله الله الله الله يا الله قد أتاك البدر ليلة تمه من ضوئه قد ضاءت الجوزاء الله الله الله الله, الله قد هل يسجد للإله موحدا يا نعم من سعدت به الأجواء ذي سجدة التوحيد أثبت للورى إتيانه بما به الإهداء ذاك الأمين لخصم شرعة ربنا ذاك الأمين لختم شرعة ربنا ما بعده وحي ولا إسراء الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله قد عمم التوحيد حقا في الدنا لم يلهه ضير ولا إغراء وهو الذي نشر العدالة والتقى وهو الذي خضعت له العلياء حي النبي محمدا بل جددوا حي النبي محمدا بل جددوا عدا الخليل فإن ذاك وفاء الله الله الله الله يا الله قد هدى من قد أتى يبغي الإله فزالت الأهواء الله الله الله الصدى لكلامه أصداء الله الله الله الله وصدى لكلامه أصداؤه كم أنطق الكفار لفظ شهادة فيهم رجال أسعدوا ونساء الله الله الله الله يا الله بحر الرسول ممتعا آذاننا لقلوبنا إسراء كم قد ترى من كم قد ترقى من يفوز بنظرة في وجهه فتأمه الآلاء كم قد تدلى ذو الرسوخ إذا بدت ذات الخليل وشعت الأضواء قلب المحب متيم بجماله قلب المحب متيم بجماله من حسنه قد بانت الأشياء إني ببابك واقف يا قدوتي أهوى النبي فحبه إسراء الله الله الله الله يا الله الله فحبه الإسراء وهو الرسول محمد نور الهدى في كفي قد صبحت أحسباء يا سيدي قد عم في الأرض البلاء وتكأكأت من حولنا الأعداء الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله يا سيدي قد عم في الأرض البلاه وتكأكأت من حولنا الأعداء عجل أيا خير الأنام بنفحة للمسلمين فليلهم ليلاء لم نلق باب من غير بابك يرتجى إذ عمن البساء والضراء الله الله الله الله يا الله الله الله الله للمسلمين فليلهم ليلاء لم نلق بابا غير بابك يرتجى إذ عمنا البساء والضراء الله الله الله الله يا الله الله صلوا على هادي الورى رمز الصفا بل سلموا فإنه المعطاء إن الصلاة عليه كنز دائم فهو الشفيع وذي يديه تشمل آل النبي وصاحبه هم أنجم زهر هم الشرفاء الله الله الله الله يا الله أخلاقه عدلا ولينا وشدة وحلما وجودا واتقى كل ما ثمي أن يخشى على دار الأمين قديمه مكائد أمائين لأهل بغائي ولدت بخير القلق خير مرائي وحده الأسواد وقد زخرف الأقوام مكرا بندوة وقتوا كتابا قام دفع ضيائي وجاءوا ببدر قيلهم ورجالهم وباءوا بخزي واهر ووباء قلت بخير قلق خير مرائي إنما شك والأسواء وكل مراء وهل منه الماحي طواف ببيته بمكة يوم الفاتح واحتضها إياه أريد بخير الخلق خير مرائي ما شكه الإصواء وكل مرائي وهل منه نسران diyaanati daa'iman bi kulli bilaadillahi tuula baqaa'i uriidu bi xayri xalqi xayra maraa'i laa shakka wal iswaar wa kulla miraari salaatun wa tasliimun alayhi bi qadrihi wa aalin wa asxaabin wa ahli walaa'i uriidu bi xayri xalqi xayra maraa'i كل مراء إنك الملا أنبيائي فاك أرسل أنبيائي إنك الملا أنبيائي فاك أرسل أنبيائي إنك الملا أنبيائي فاك أرسل أنبيائي طب لين طب لين طب لين طب لين الأنبياء بار سرنا وثنائي شمس رصدين واهتدائي إنك الأنبياء الأنبياء جنة لك بامتداحي لملاسي وثرائي إنك الأنبياء دائما فيك ودادي وذكاري وفنائي إنما أنبيائي فقرصا الأنبياء هما قلبي طال وجدي وسفيري وبكائي إنما أنبيائي إلى المياه وحنيني واحتراقي في صباحي ومسائي إنك ما أنبيائي ما أرسل أنبيائي زارني طيف كيال من حبيبي عينها إنك ما أنبيائي ما أرسل الأنبياء هل في القلب بمكانا مستحيلا لسوائي ملة الأنبياء الأنبياء طل من دون مقامي وحياتي من دمائي ملة الأنبياء فقد أرسل الأنبياء ينقضي هم سوائي فهو هميس سوائي إن الأنبياء ما أرسل الأنبياء كان فخما ومهيبا ومليحا ساسراي لا ترى سب المقفى فهو سينون قبل رأي إن الأنبياء مدخه أنسي ورائي قربتي باين ورائي من قلب أنبيائي الأنبياء نعمه عبد تسامى فلوسير لوائي من قلب صفوة الحق حبيب الله كنزي وغنائي حاصلي فيه أراه في جنوني أو شقائي إن قلب الأنبياء فاق أرسال الأنبياء فاستغالي باستغالي يقي فيه فوزي وطلائي بقدوم للكون في الماء ثم لا طاب منكم هنا إلا هذا أمامكم ثم هذا نال منه ما ناله الكرماء أمين قدوم للكون في سماء ستة من مئين لا وزن سارة ميرا لخفة الأولياء مرحبا تجاني أمينا لقدوم للكون بالفا تلك من صعب شيخ فاجب بقطبين هذا سيبقى أصحابه الأصفياء مرحبا بشيخ تجاني أمينا لقدوم للكون بالفا قدم شيخ فوق أرقب قومين كل كل عصي سيادة قضاء مرحبا بسيق التجان أمينا بقدوم للكون في سماء زاوية الإمام صالح تقبى دون شك فيه وليس مراء مرحبا بسيق التجان أمينا بقدوم الكون في سماء من كرامات زقلات يؤرد وتركيب الاسمك كيف يشاء طافت الكعبة شريفة بشاي عديد اليهب ذا ذرة مرحبا بزكي آمنا لقدوم للكون فيما أصف شيخ المطابق وقل ما أعبر شيخ ما به الافتراء من بشيخ تجان آمنا لقدوم للكون فيما واصطراب الإمام كان مما فيه عمرو الخضراء alxabra oh. moom itam mu def dara ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam we are giving the microphone to one of our brothers from Libya al Ustaz Fathi so Sheikh Muhammad Al Amin uh, give the uh, tell us to give him the microphone to make some madh for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah. يا سيدي يا رسول الله أتيتك لا سواك محمدا وأنت مزوري أنت للخير معدن أراني كغيري لاجئا عند بابكم وكلا عظيم السؤل كلا يدندن أتيتك يا خير الخلائق موئنا أرجيك تعليني وحالي تحسن وتشفي سقامي تجبر الكسر سيدي وتعفو عن أسواء إن درى المهيمن هو الحب إبراهيم قد جاء زيرا يا أحمد خير العالمين وشكيرا فمن كان ينحو للمدينة زائرا فإني لجئت لأحمد زائرا عليك صلاة الله وسلام فعيش بدون الحب فيك مضيع فمن كان ينحو للمدينة زائرا سواه فإني جئت أحمى دزير له المسجد الأعلى فطا مشيد وأقطع أو روض الجنان مجاور عليك فلاة الله ثم سلام فعيش بدون الحب فيك مضيع يذكرني دارا مضى ونبينا يروح ويغدو يبلغ الوا يا ذاكرا يبيت يناجي ربه وناره يعاشرنا يدي إلى الحق نصير عليك هالة الله ثم سلام فعيش بدون الحب كمضيع فآثار دلت عليه تبصرا بمكة أمر الهاشم الدار ضائر واتي طائبات ناداك بدر وخندق وداء حود تنسيك بدوا وحضير عليك هالة الله ثم سلام بعيش بدون الحب فيك مضيع فبرهم ياتي زائرا مو متوسلا ومستفيعا أرجوك في القبر حاضرا فكن لي شفيعا يوم زغى وأذعنت وجوه وأبصار ترى الكل حائرا عليك صلاة الله ثم سلامه